maa ngi leen di ziar sama présence ñaari côté la mooy Dieyla xale la boo xamante ne xamante nañ ci millier bi ma xam ko à travers son manager mi jëkkëram tey di yaas ma yàgg ko dalal plateau à chaque fois ma soxla ko da koy yombal pour mu ñëw ci sunu plateau yi donc tey bu fekkee ne dañ koy takk ki koy takk nekk euh, sunu xarit ci mille bi muy yaas je pense que li ñu war a def rek mooy ñëw dooleel ko ñu won ko ne aussi ñi nga xamante ne bi ñu la musaan soxla ak sa artiste da nga ko doon yombalal yow tam sa bis ñu ñëw yombalal la ko ñëw seet si la. waaw lii da koy da koy rek teel ko def kilifa parce que xale la defagul dara ci musique mu teel a dugg ci sëy mën na ko dimbali ci carrière mu bañ a bokk ci xale yi ngay xamante ne dañuy dégg yenn wax yi parfois donc loolu bu ko bu ko yàlla dimbalee moom mu comprendre jëkkëram jëkkëram comprendre ko pour man seen sëy war naa mën a neex. Mm-hmm. sotti jaag def ci la rek parce que yaas bu nekkee menager am takk ko liggéey bi day gën a yomb day gën a gaaw daba sëy Mor Mané mooy jëkkëram Mor Mané mooy manager daba sëy donc pour man day gën a yaatal seen liggéey te ku ci nekk rek xam nga ne li ma nekk man di ko def sama jabar xam na ko jabar ji xam ne jëkk ji nekkee tey bu yeleen yàlla boole ñu sëy pour man seen sëy dafa war a gën a yomb gën a neex parce que ñoom ñaar ñoo bokk benn milieu ku ci nekk comprendre nga sa morom ci li mu nekk lan la. pour man buzz la rek te musique sénégalaise toll na foo xamante ne gars ñi dañuy yaakaar ne bu ñu defulee buzz kenn du leen déglu wala kenn du leen xam nañu bañ a topp loolu te jéem a liggéey. artistes yi artistes yu bari tey boo xoolee seen carré dañu jàpp ne foog ñu def buzz pour ñu dégg leen te buzz dafay positif buzz bi gën a positif mooy nga génnee morceau mu neex mu def buzz ñëpp xam la mais paa nga créer buzz buzz kenn du ko xëcc da ngay bàyyi mu ñëw ci yow. Mhm. Mm-hmm. loolu pour man ci nit ki lay nekk rek te sëy moom bu ko yàlla tuddee day am waaye bu waree jeex tamit day jeex ak nu mu mën a amee aussi mais ñoom jàpp nañu ne seen génération ñoom ñaar war nañ mën a comprendre te ba nga xamante ne bu ñuy sëy loolu ñu doon dégg ñu leen ñu waxal artistes yi di ko waxal ñu nekk ci showbiz bi ak milieu bi bu ñu ko bàyyee xel dinañ mën a gérer seen sëy pour man loolu kese la nañ ko gérer seen biir rek. MIA ak euh, NFU NFU seen sëy ñëpp a ko apprécié woon complicité bi ñu amoon parce que man mos naa leen invité laaj leen fan ngeen xamante ba am complicité bi nii nduroo yëre yi ngeen di sol fu ñu leen gis yéenay ànd NFU moom may la doon liggéey ci studio MIA doon ñëw di fa enregistré yàlla def ba seen sey nekk donc maintenant euh, déggoo fi ay coow ci seen diggante ba yàlla def na li nga xamante ne moo gën ci ñoom pour man mooy yàlla moo tuddoon sëy seen diggante sëy bi jeex na nañu muñ rek te ku ci nekk xam ne am nga foo jot jaar ak sa morom que ñu bañ a nekk ku nekk di yàq sa deru morom j'ai bien apprécié euh, Mia démb sorteem bi mu ne ak lu mën a am sama jëkkër la sëyoon nañu tas nañu waaye damay jàpp ne sama kilifa la ba tey ndax fi ñuy jaar man nag moom defe naa ne euh, mënuñu ko wax ci télé donc Mia comprendre ne sëy dagan na waaye tas dagan na maintenant na ko gérer NFI aussi xam ne góor la gentleman la moom mu continuer te bañ a dugg ci ay détails que lii la ma def ak lii lañ séq pour ma loolu amul solo. voilà soo émission guddi gi euh, bokk émission showbiz bu nit gën a seetaan léegi. Mhm. liggéey kese boo liggéeyee mu feeñ te bañ a xëcc dara te daal di nekk ci sa yoon di liggéey te bañ a xëcc dara maa ngi ci média depuis 2004 ba 2022 mës nga dégg ñu ne Yves moo wax lii. mës nga dégg ñu ne moo def lii mës nga ma dégg ci frasque mës nga ma dégg ci buzz je touche du bois fexe naa ba man li ma bëgg man mu nekk buzz si man mooy ma liggéey ba nit ñi ñoo ne ma sa liggéey rafetlu nañ ko mais pas yaa fi wax lii wala yaa fi def lii wala yaa xeex ak kii wala yaa jëw kii wala yaa def nangam donc man sama liggéey man ci laa bëgg di am buzz que may topp coow wala leneen ak leneen waxuma maa gën ci animateurs yi wala waxuma maa fi mën mais bokk naa ci ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla am naa respect ci sénégalais yi te loolu sant yàlla la. voilà soo xoolee milieu animation bi soo xoolee temps dafa bëri mm-hmm. euh, animation yoo xam ne si réseaux sociaux mm-hmm. bu nekk day dem ba xam bu fa tolloo day gën a ubbeeku te kenn moomu ko man mécanicien la woon mécanicien ci mécanique ci mécanique laa jóge dem dugg ci média rajo ak télé. donc man tey mën na ne looy ut ci média bi parce que mécanicien nga woon la moo tax demoo ci ci moteur yi di seere kenn moomu ko xam nga lan lañ ci mën a wax rek mooy képp ku ci dugg nga xam li la ci dugal lan la ak li nga ci ut boo ci dugg li la ci dugal lan la ak li nga ci ut mais métier bi nii muy rajo muy télé muy way muy mannequinat ak bu mu ci mënti doon kenn moomu ko député yaa ngi assemblée lan la ñuy wax député soxlool muy jàng luñ leen nommé la rek mais soxloo jàng député yi ñaar député ñoo nekk assemblée te dégguñ tubaab bu ñuy voté ay loi xamuñu lu ñuy wax donc benn la mais na nga xam yow la la fa yóbbu lan la sa taxawaay bi nga war a am ak lan nga fa war a def loolu dong la mais métier bi que soit sa animateur bi nekk ci TikTok bi bi nekk ci Facebook bi bi nekk ci rajo bi ak télé bi ñoo yam ku ci nekk am nga sa wàllu ci mbir mi boo ko gëmee da nga koy jël ah,